nuroo yi mën a am diggante doomu aadama yi dañoo bëri te ute ñu ràññee ci lii nasaraan di wooy réincarnation maanaam nit ñi xam ne dañoo deewoon ba pare dellu siwaat sëriñ sii di wooy ci turu Pierre Faye di ab séeréer cosaanam bàyyil ko xam-xam ci boobe mbir léegi nag mu am xooleen bi nga xam ne dinañ ko jëf xooleen boobu lan la ndax kële ci anam bu mu ñëwee nii la lu mu jotu dund nii la woon ba bu muy génn àddina yit nii la génnee àddina pour ñu xam ne que réellement loolu la ah nañu def mu am li nga xam ne marque bañay def ci moom mais marque boobu nag balaa ñu koy def nag day sekk kooku génn na àddina si à dire mu dee marque bi nag mun na doon lenn souvent dañuy dagg ci cër yi dara soit ci nopp bi ñu dagg ci soit ci baaraam tan yi ñu dagg ci mbaa ci baaraam loxo yi léegi phénomène bi mooy kii dee na suul nañ ko normalement ci anamu scientifique normalement suñ ko defee ci yaram yi su décomposer ainsi de suite loolu war na dem mais nag le hic est là parce que kooku léegi su nekkee ne dugaat na yaayam boo mu jël ëmb ba wasin léegi nag kooku su di soité nag ñëwaat ak marque ba fañ ko defoon ah kon nag mooma muy dolli ba tey ne pour phénomène boobu bañ a amaat dafa am ay jéego yu ñuy teg ngir nit kooku bañ a dellu waat nañ koy dencee c'est-à-dire léegi kooku au lieu ñëw ñu bàyyiwaat mu nekkaat ci yeneen circonstances ba demee nu mu demee woon léegi euh, loolu euh, dina am beneen pexe beneen euh, acte ba nga xam ne daanaka rituel bañay def pour que kooku dootul demati ci circonstances yooyu noonu ça ne veut pas dire que nag du dee mais nag dina am niñ ko yi ba ci anam yu mu doon demee bon dootul dootul demee noonu te bi yoon su demaatee itam dootul ñëwaat lii di réincarnation nekk na lu kemtaane moo tax du cosaan yépp ñoo koy faral di gëm Mariane sàll VOA Afrique Dakar